tey dama ñëw fii ci stade bu Mbacké bi doon xool état d'avancement travaux yi yàggul dara ñëw naa fi ma dellu siwaat fi tey mais gis naa ne vitesse bi liggéey bi di demee yaakaar naa ne bu fekkee ne tegguwuñ seen tànk suñu borom mën na def stade bi léegi mu pare li may wax rek mooy gis nañ fekk sur place pelouse bi fekk nañ fi déjà euh, latérite bu fin bi certainement teg gazon bi ak procédure technique yi loolu ñoom ñoo ko xam xam naa ci lañ nekk bi ñu ñëwee itam fekk nañ projecteurs yi bu ci nekk gas nañ kàmb gi ñu ko war a installé placé benn bu ci nekk aussi fi ñu ko war a def mu mel ne loolu aussi ab avancement la xool naa mbaar bi ci ginnaaw fekk naa fa gazon synthétique yi mais aussi li nga xam ne mooy mbaar bi war a nekk ci kaw tribune bi boo yaa ngi dégg noonu ouvrier yi ñu ngi leen fekk ñu nekk ci liggéey bu baax a baax a baax mu mel ne amul are ñoom itam ñu ngi ci bay seen waar bu baax a baax a baax kon daal jàpp naa ne état d'évolution bii nga xamante ne ni travaux yi mi ngi ci yàpp euh, naa ne bu fekkee ne tegguñ seen tànk yàlla mën na def stade bi dana pare ci anam ya mu gën a gaawe man nag euh, li may wax rek mooy dara jërul yàkkamti parce que buñ ko liggéeyee liggéey bi yàkkamti bu ëllëgee ñu bàyyil ñu ko fi dañ ci football benn at ñaari at terrain bi yàqu nañu respecter délai yi waaye aussi nañu respecter norme de construction yi ba xam ne stade Mbacké bi dana bokk ci stade yi gën a mucc ayib ci Sénégal Mbacké di recevoir ay match international mën na nekk parce que espace bi mu ngi fi extension tribune war na fi mën a nekk kii di Mbacké xam ne dëkk football la te Mbacké dafa englobé la commune de Touba te la commune de Touba euh, am na pratiquement plus de un million deux cent mille habitants te ñoom ñëpp fii la ñëw mooy seen case fii la nekk kon euh, damay ñaaxaat état bi leen demander que ñu accélérer les travaux parce que am nañ fii suñu équipe fañon bi di avenir Mbacké euh, ay difficultés la ñuy rencontré suba rek war nañu fubali à a Diourbel te bu fekkoon ne dañuy fubali fii au niveau local supporters yëpp ñëw supporter leen loolu doon na may doole équipe bi ba fa ñu bëgg a egg ñu man fa egg di demander rek mouvement nawetaan euh, nañu taaxiirlu tey ñaan ñun ñëpp ñu gaaw accélérer les procédures muy maire muy député képp koo xamante nii ci localité bi nga nekk ak fépp foo mën a wala nga wax fa ba sa kàddu mën a jóg ngir ñu mën a eggale suñu stade Mbacké bi waa Mbacké man koo jariñoo jeune Mbacké man ci am cadre d'épanouissement bu baax vraiment loolu la ñuy rafetlu la tribune bi rëy na macha allah pelouse bi euh, macha allah ni ñu ko gisee raf liggéey bi daal macha allah ni ñu ko gisee rafet na mm. donc dañuy ñaan rek nañu àggale ba nga xam ne lépp lu nga xam ne mi ngi woon ci kay de charge bi ñu def ko na mu waree dara bañ ci am benn gàllankoor mm. euh, préparé woon naa benn correspondance adjoindre ci en annexe benn euh, papier bu xamante ne nii Euh, dama recensé entité sportive yi am ci dëkk bi yëpp comme muy football ligue muy korpo muy mouvement nawetaan muy UASU euh, muy ñiy def pétanque ñiy def kung fu viet va daaw man sax maa ngi soo xam ne viet daaw am na fi ah karaté arts martiaux école de foot bi di ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ku ci nekk préparé naa une correspondance ak euh, chef service du sport ku ci nekk annexe bi ma ci def mooy ñu mu am ligne boo xam ne dañ fay énumérer les problèmes yi nga xamante ne ni discipline boobu am mi ngi koy rencontré buñ ko énumérer pare ñoom itam ñu joxe ci seen xalaat lan lañ xalaat ne buñ ko defee loolu war naa mën a saafaraw commission bi nga xam ne nii moom laa jiite mi commission sport aussi ma ànd ci ak Fanta Seye ak Serigne fay ñun ñu dégager ay euh, suñu suñu xalaat par rapport ak problème yooyu ñoo ñu am bu ñu paree ñu def dégage perspective mooy ay mébét ngir sport boobu mën a soxla jëm ci kanam bu ñu paree loolu yëpp nag. dañ koy def compiler ko mu nekk un document bu ñu yóbbu au niveau du conseil municipal jox ko maire jéem ko défendre au niveau du conseil municipal bu boobaa yaakaar naa ne problème yi dana jóge ci base ba remonté wu egg jëm ci kaw te loolu dana mën a tax ba vraiment euh, maire bi dana mën a xam fan lay teg tànkam pour suqali sport dëkk bi parce que amuñu fenn fu dul Mbàkke te amuñu leen lu dul Mbàkke te lu ñu am Mbàkke moo ñu ko gënal